lay ziar bu baax. waaw doo lay ziar. mi sant ku tàdd ki. général Bousso borom jinne yi. ak Kassa. depuis Gambia. waaw right now Gambie lañ jógee. wante ñu ngi Sénégal. ci màggal gi. ñu ngi nuyu mbokki àdduna bi yëpp. ak mbokki Sénégambia. so waaw léegi daal fi mu nekk nii daal alhamdulilah rabbil alamin lan lañ war a wax. pour liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall. naka nga dundee tey 18 safar gi. waaw 18 safar gi maanaam waajaayu Serigne Bamba ndax Serigne Touba moom dafa nekk mbisaal boo xam ne lu lu ndaw loo ci def yokkute la. Hmm. ndax maanaam beneen mbir la maanaam yoonu géej gi moom maanaam ci biir loolu noonu buñ ko waree def ak moo tax yërmande kese la maanaam teraanga pour nit ñi bëgg understand nga ma miin pour ñu waaj màggal gi mooy 18 safar understand nga li ma miin safar waaw yéen Baye Fall bi yaatu na lool foofee ca diwaanu Gambia. waaw Baye Fall dafa nekk loo xam ne is international in the world because of why international la ci àdduna bi yëpp Baye Fall dafa nekk beneen things parce que nit ki mun ngaa nekk Baye Fall te doo xam ne Baay Faal nga yaa ngi comprendre moo xam ne yaa ngi nekk États-Unis New York yaa ngi Germany yaa ngi nekk Germany mooy Allemagne nga nekk Hollande nga nekk Paris nga nekk itali nga nekk Suisse ba Japon ba ba Chine you ba Inde ba dëkku araab yi nit ñu fa nekk rek Baay du ay njëñ Baye Fall du soli sagar Baye Fall is a diplomacy things waaw affaire diplomate la Baye Fall yërmande la Baye maanaam dafa am lu mu ëmb parce que l'islam alxuraan alxuraan maanaam sër la dafa am njàmbaas Baye Fall mooy njàmbaas moo tax ci angale ak jamaïcain maa ngi jéggalu ci kàddu yi boo déggee ñuy wax di king of king lord of lord conquering lion that name is the name of la ilaha illallah seydina muhammad rasulullah Baye Fall les lions du Sénégal c'est les Baye Fall Baye yi du sax ñuy football parce que chacun y a un animal koo gis xam nga aspect animal Baye Fall yërmande la Baye Fall du sàcc Baye Fall du fen Baye Fall du laal loolu noonu nit nag du mat loolu noonu waaw loolu noonu lu ñuy ëmb la waaw lu ñuy ëmb la parce que mbiru Baay Faal tamit da nga ciy maandu nit day maandu ndax ku maandu suuf du la lekk nit da ngay maandu ci Baay Faal yaa ngi comprendre parce que waaw man sax mun naa ne Baye Fall laa te du ma Baye Fall wante maa ngi jéem a nekk Baye Fall. yaa ngi comprendre wante yoonu Cheikh Ibrahima Fall parce que maam Cheikh Ibrahima Fall dafa nekk beneen mbir beneen dimension la. waaw looy tudd la quoi. waaw yërmande kese la quoi. Mm-hmm. yaa ngi comprendre parce que tey fii ngeen taxaw ni penc Cheikh Ibrahima Fall la. waaw waaw kii suma góor yàlla la ku baax la ah, faw nga faw faw nga ah, ah, waaw xanaa sant xanaa sant borom ndigal rek da ko béggee saasu nag mu yàgg fii daal Fall Ndiaga waaw dana nag nun itoo nu wax nga wax ma ci tuuti rek waaw nun wax waaw lan mooy Baye Fall waaw Baye Fall Baye koy roy rek moo fi feeñal xaadimu rasool bu dul woon Cheikh bu dul woon Cheikh Fall Bamba réer Bamba réer bu ne mës ñu di ñu takk ay sareet kon bu nu yeboo sant Cheikh Ibra uh-huh. sant sëñ Touba sant borom digal Fall mu ngi noonu ah, sant Cheikh Ibra sant borom digal Fall la muy wooyee léegi mën a yow dañuy waxtaan waaye xam nga Baye Fall comme da nga ko wax lii ci biir wax ji di tooñ uh-huh. ñun bëgguñu di tooñ uh-huh. dañu may oto bi mu jàll ba tey rek bismillah yaaram bismillah ñëwal waaye ñëwal ñëwal bu la neexee ñëwal bu ko defee ñu daal di wéyal suñu waxtaan xam nga Baye du tooñ moo tax waaw waaw waaw am nañ ci ndigal daa mel ni ak ah, waaw waaw <laughs> jaajëfaat aja yaaram bismillah waaw ak daa am foo newoon fu am solo waaw waaw mooy Baye Fall waaw du du laal loolu noonu waaw ok boo déggee ma ne la loolu noonu parce que ba léegi lu ndaw rek ñu ne Baye Fall te gars yi tamit dañ war a am yërmande ci Baye Fall. Mm-hmm. parce que bala nga koy wax da nga naan baay Baye bi jëm cër la. cër la moo tax nga naan Baye. faal bi faal bi mooy underground bi di background ndax loo gis dafa am underground mm-hmm. understand nga parce que mbiru Cheikh Ibrahima Fall mooy li ma la wax ak góor yàlla bi li wax dimension la affaire bi du ne du looy looy la yërmande la quoi sensible la understand nga li ma miin waaw dina am nag ñoo xam ne dinañ comprendre you know am na ñoo xam ne duñ comprendre some people can understand some people can not understand because of why pourquoi the creation of the city léegi fu waaj bëgg a dem wala xamatoo foo jëm rek ne Baye Fall laa dafa nekk affaire bu yéeme parce que Baye Fall dafa neex léeg-léeg nga ànd gis koo xam ne bala ngoo koy xam weeru koor jot boo gisee léegi nit ñi you know bu weeru koor jotee nga xam ne kenn du Cheikh Ibrahima Fall weeru koor bi bu jotee ku nekk a ngi joxe ndogu léegi loolu ci àdduna bi yëpp la weeru koor bu jotee ku nekk a ngi joxe ndogu naan la kaay xéewal waaw pourquoi bu weeru koor bi paase ndogu yooyu ak yërmande boobu ñu doon dund mënuñu ko continuer wante Baye Fall dafa bëri ay classe par classe la par dimension la. par niveau la par niveau la par escalier la. yaa ngi understand Baye Fall da ngay sangu ba set solo nice understand nga mi boo nekkool ci tool yi nekkoo ci wetu sëñ bi da ngay joxe sa poos doo ay poos la. wala mooy ñàkk jëriñu. waaw ñàkk jëriñu bi ñàkk bi maanaam da ngay ñàkk wala nga ñuqee te mbir day gaaw understand nga wante ñi ngi nekk euh, buntu kër sëñ Cheikh Ndigal Baye góor waaw. ñi ngi nekk booru kër sëñ Cheikh Ngunda Fall kër Baye Sakk Fall you know kër sëñ Bada Fall kër Chérif Assane Fall pencum Baye Fall waaw fi mu nekk ni alhamdulilahi rabil alamina lañ war a wax ci dundu Baye Fall wante Baye Fall moom dimension la Baye Fall yërmande la waaw xamuñu te dara wante am nañ as cofeel ak tuuti loo xam ne mun nañ cee waxtaan ak jaam yi pour ñu defaraat suñuy laxasaay suñuy laxasaay maanaam suñuy toogaay understand nga Baye Fall day jéggale day jëllale Baye Fall maîtrise la da ngay maîtriser wante du ne Baye Fall lu ma neex laay def kooku sa Baye Fallu bopp nga wala Mbaye Fall nga wante Baye Fall beneen affaire la beneen dimension dund la daal. acca saa baay jaajëfal nañ la. que ça ma ne maa ngi kontaan. waxtaan bi neex na. waaw parce que bu ñi waxtaan du fi jeex. déedéet understand nga la ma Cheikh Ibrahima géej la. waaw non moy dego maam Cheikh Ibrahima Fall mooy teel a dugg neppaliko. wala feur la lay wal ni géej la lay wal ni géej ya yaa ngi duggaat si Cheikh Ibrahima. waaw waaw bo gisee bu nga ne ma géej la motax manela essenceur la essenceur moy li nga xamne da ngay teel a napoli ko ex euh. ya ngi understand. ya ngi comprendre waaw teel a napoli ko do was do fàtte xorom. wante les lions du Sénégal. original kër Cheikh Ibrahima Fall la. waaw ak saa kontaan nañ torop seen télé bi wala seen chiit bi wala seen rajo bi yàlla ngeen dem ba nekk ay télévision ci àdduna bi. ak Sénégal. ak tous les régions. ba ngeen di ñëw Gambia. wan ndax dañ ne Sénégambie. Sénégambie understand nga miin wante kontaan naa torop. ci bésu màggal bi ñu war a waxtaan ci yoonu Cheikh Ibrahima Fall waaw man nag maa ngi tudd sëñ Modou Bousso sëñ Modou Bousso waaw wante Bousso Ngunda Fall lañ may Bousso Ngunda Fall waaw Bousso jaajëf Fall jaajëf Jéy Faati Penda Lat Sukaabe Ngoone Jéy a fu Njoogu damel Dëccalaw damel Samba Yaay Fall akasa dundu leen rek waaw ajaaraama jërëjëf quoi li nga wax tamit kontaan nañ ci trop bu ñuy wax du jeex meen waaw yàlla ñu yàlla may tàllal leen loxo yi ñu ñaan fu waay toll rek nel wax alhamdulilahi rabbil alhamdulillahi rabbil barki yaa ngeen jëf ak sa